alhamdulilah ñi ñëw leen seen revue de presse lamb talaatay tay ji la ca gën a fës suñu lamb waxtaan nag Eumeu seen moom mi jóge ci ndam lu rëy ci kanamu ki nga xam si ni moo di Bombardier jox ko li nga xam si ni moo di 2-0 moom Eumeu Sène mu ngay desuwaat ci li nga xam si ni mooy programme am nekk ci kanamam journaliste ba lam ko njëkk a mooy sa diggante ak ki nga xam si ni moo di Sa Thiès mu ne Sa Thiès na dem bëre ak sama rakk kii di Tyson 2 ndaxte ñoom ñaar ay naataango lañ ci làmb te neexoo nañ war na noo mën a bëre ginnaaw loolu ma ngay xam ne ne digganteem ak tafaatin loola lum ci wax mu ne tafaatin champion la ndaanaan la sama rakk di booy ñaa la mujjee daan kon kenn mënu koo bañ ci làmb moom tafaatin ginnaaw loolu mu jugee foofu moom ki nga xam si ni moo di Eumeu Sène xam ne ne ki xam si ni mooy digganteem ak Balla Gaye 2 bi mu war a bëreel ma ngay xam ne ne combat boobu fañ ko jàpp sori na loolu ndax ca saison bee ñu jëm ca fin de saison ba ca lañ ko jàpp te nar a toog ñaari at bëree woo ma ngay xam le ne loolu papaam Gaston Mbengue du ko seetaan ci diggante bi war na fee mën a bëriwaat moom Eumeu Sène ma ngay xam le ne digganteem ak Balla Gaye 2 loolu troisième combat bi loolu buñaa la ci Balla Gaye ginnaaw loolu ñu ñëw ci ki nga xam si ni ñu tudde woon làmb ji suñu làmb ñu xamal ne daa absenté woon ñëwul ci la nga xam si ni moo di làmb ji ki nga xam ni moo jiite làmb Bira Sène jiital moom ñëwoon na suñu làmb ñu xamal ne ci loge ba la toogoon moom Bira Sène jiital CNG ginnaaw loolu ñu ñëw ñi nekkoon ci délégation bi nga xam si ni moom la Matar ba yónnee woon suñu la muñ xamle moo di promoteur bi di Assane Ndiaye ak ki xam si ni moo di communicateur traditionnel bi di Lamine Thiam Dogo ñoom teewoon nañ ci li nga xam si ni moo di làmb ji suñu la muñ xamal ne làmb jooju nag amoon na sécurité total di diggante Bombardier ak ki nga xam si ni moo di Eumeu Sène sécurité bi mate woon na ko lool ndax Don King de l'arène di Gaston na sécurité bu doy ginnaaw loolu ki digaloon recours ci kanamu CNG moo di Ameth dem te amateur yi doon ko xaar digganteem ak Jackson suñu lam mu ñu xamale CNG dëggal na victoire ki nga xam se ni moo di Jackson ci kaw Ameth Dème ñëw ci diggante Fils de bu Ngor suñu lam mu ñu xamal ne ñaari champion yi keroog bu ñuy bëre samedi foofu ci nekk ci ñaar dangaa mobiliser ñoom ñaar ci lambu Jaks jooju ginnaaw loolu ñu ñëw ci drapeau na ci équipe bu nga xam se ni mooy raison de naissance am foofu la juddoo ci raison de Fatick jugee na fa léegi raison de Kaolack lay représenté ca Diourbel ki nga xam si ni moo di Lamine Diop ñu gën ko xam ci rajaxe moom it suñu lamb ñu xamal ne moom ci catégorie 100 kilo bi ca la ne moom rajaxe ci région de Diourbel ginnaaw loolu ñu ñëw ci keneen ki nga xam si ni moo di Libidor suñu làmb mu ñu xamale moom it day absenté ren ji ci région moom Libidor ndaxte demul woon ci la nga xam si ni mooy bindu ba ginnaaw loolu ñu ñëw ci Mamour Ndiaye suñu làmb mu ñu xamal ni dafa dina surprise foofu ci adresse Senghor ci 16e journée bi ba yeggee ci cappaandaw gi ca final ga ki xam si ni mooy Mamour Ndiaye moo fa daan général bu Malika te moom la ñu waroon doom ba ginnaaw loolu làmb jaamoon ca Fimela le 25 suñu làmb ñu xamale bañ yeggee ci cëppaandaw go mbër mi di Abdou Ngom moo ko jël ginnaaw kooku nga xam si ni moo di Mbaye Guèye Junior suñu làmb ñu xamal ne ginnaaw bi mu daane jegaan bu rek énergie ndax si samedi bii ñu jëm bu demee foofu ca Sébikotane fekk fa Boy Balde ndax dana confirmer ndax dana ca mën a am ndam làmb ju confirmer ngi nii ne taxaw na diggante Mor Kankang ak Aline Seye Junior suñu làmb ñu xamal ne ki nga xam si ni mooy Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moo fa jaar moo taxawal boobu boobule combat suñu làmb ñu xamal ne combat boobu nag ci mois de juillet ca lañ ko jàpp ca lañ koy war a bëree ginnaaw loolu ñu ñëw ci beneen combat bu ñu bëgg ñu bëree

bëgg fayaat te moom Max Mbargaan mooy xam ne ne pare nañ pour bëree Fall bëreel Fallou Ndiaye waaye nag faaw ñu yokkal Siteu ku ne xam ne ne day mobiliser te ndaanaanu làmb la ngay xam ne ne beneen promoteur jël na ko en mai te fay na lu ëpp la ña nga ca négociation ya ginnaaw loolu ñu sant leen